Euh, mbokki internet yu IYAT TV dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm dañuy dal di dikkaat rek ci ab yaatal euh, ci dossier yi nga xam ne rek jamono bi ñu toll nii moom moo nekk ci kaw taabal ji euh, te ku nekk xam na ne rek muy Sénégal ak ki nga xam ne moom mooy seen président mën nañ ca mbir minimel ki nga xam ne rek moom moo ca daal di àddu jamono bi ñu toll nii ñu fa seenee dikk ca kàddu ya nga xam ne rek daal dina koy jotee yëkkati gannaaw opinion internationale bi nga xam ne jamono bii dañoo daldi di signe fang ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askanu sunu gaal te la ko waral naka du lenn lu dul rek gannaaw ba ñu nemmi koo kënekat kii nga xam ne rek moom mooy seen jiit di seen président de la république dafa daal di dikk pour jaay leen li nga xam ne rek moom moo di doole tax nag ñu daal di gis ki nga xam ne rek moom moo di Nathieu Yamba moom mi kat dafa daal di dikkaat ci cause yi nga xam ne rek moom moo daal di opposé wu nekkat lan moo tax rek kii di président de la république di wuyoo ci turu président Macky Sall daal di nag jug def ay acte yu nga xam ne rek daf ko daal daal di programmer mën nañ ne loolee lañ ko daal di tuddee te du lenn lu dul nag ay doomi aadama yoo xam ne rek ñi ngi dee ci biir réew mi ba tax mu mii di président Macky Sall lu ñu njàkk moo di njàkk ndaxte kat désordre bi nga xam ne rek daal di nañ koy nemmeeku mu nekk lu yëkkatiku lool loo xam ne rek ñu baree bari yaakaaruñ ko woon wante nag mu nekk bëggu-bëggu ki nga xam ne rek moom moo di njiitu réew mi mën nañ ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo di France ñoom it rocc wuñ seen loxo ci biir di kàddu yi ki nga xam ne rek moom moo di Nathalie nekk di xam ne que ne moom mii di président de la république bu fekkente ne gis nañ que ne kat deuxième mandat dal daal dina fiy toog cinq ans gannaaw premier mandat bi nga xam ne rek jotoon naa xam ne que ne kat daal dinay nekk sept ans mu wàññi ko ba def ko cinq ans ci biir kàddu mu daal di wor ndax askanu sunu ba tax nag mu yóbbu ko ba def ko cinq sept ans ci mbir minimel tax sénégalais yu baree bari jaaroon fa daal di koy weddi mën nañ ne nag juróomi at yi nga xam ne rek moom moo daal di mujj ci nguuru kii di président Macky sàll lañ ca nemmeeku du lenn lu dul boo xam ne rek bu siiwa siiwa siiw la kat ay palaas yoo xam ne rek gis nañ mu daal di koy nome ay doomi aadama yoo xam ne rek mën nañ ne moomu ñu ko ci mbir mi ay manifestation yoo xam ne jot nañ kaa seetlu depuis mois de mars yi mën nañ ba tey ay doomi aadama daal si jot a ñàkk seen bakkan moom mii di Natalie Yamba ma ngay jot a xamle ba nekkat bu fekkente ne faat nañ fii ci biir réew mi ku ñuy wax Cheikh Kouly faat fi tamit ku ñuy wax Cheikh Wade faat fi ku ñuy wax Bounama Sempa faat fi ku ñuy wax Sagna faat fi ku ñuy wax Bassirou Sarr faat fi ku ñuy wax fàllu Sall Ousmane Badio tamit ñu daal di koy faat mu ñàkk bakkanam ak kii nga xam ne rek mën nañ ne daal dinay jur coow te ñu war see dikkat indi si ay leeral muy kii di moo Gueye mi nga xam ne rek am marchand ambulant la ci mbir mi mën nañ ne kii nga xam ne rek moom moo di Nathalie bàyyilul dara dara dara kii nga xam ne rek moom moo di président de la république ndaxte katu dafa gis teg si tamit dafa jàpp ne moom moo di ndey mbill gi te lu jig njaag moo di njaag kon nag bu ñu demee ba Sénégal ñu jàpp ne nag jeunes yi fi nekk rawatina nag jeunes yi nga xam ne rek ñoom ñoo féete foofu foofule ca diwaanu Bignona dañoo jàpp que ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Dakar dañoo war a daal di yanu xeex bi su boobaa dinañ gis li nga xam ne rek moom moo di résultat ndaxtekat kii force la xam li nga xam ne rek moom moo ko fi war a jëlee ñëpp xam nañ ko ci mbir mi ni mel di jaay doole moom mii dina cali di yegg ba si sax ni buñ demee ba Sénégal di tëj ay école wala boo ko di def ay débrayage dañuy jàpp que ne kat crise mondiale daal dinay am ci biir réew mi di Sénégal te li ko waral du leen lu dul yorin ak gouverne bu bon boo xam ne rek kii di président ba ma ngi koy daal di amal ci biir réew mi ca loole sax la ñuy daal di sukkandikoo ba gis kenn kat daal di nañuy remarqué seetlu kenn ñi nga xam ne rek ñu mel waa SAES daal di nañuy jot a li nga xam ne rek moom mooy benn mot d'ordre boo xam ne rek mën nañ ne euh, grève bu 48 heures la ci. ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fay liggéeyee mën nañ ne nag commencé ko fi nga xam ne rek moom moo di lundi 12 février suite bi nag du lenn lu dul gannaaw deseb ki nga xam ne rek moom moo di étudiant bi di Alpha Yaya Tunkara foofule ca université Gaston euh, gannaaw nag faatu ki nga xam ne rek moom moo di Alpha Yaya Tunkara mën nañ ne nag réew mi yëpp rek daal di sëngeema foofale ca université Gaston Berger dontele nag ñu baree bari gis kenekati ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di takk der yi ginnaaw ba ñu jaamarloowee ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ndaw ñi ci jaamarloo bu méttee métti te yàggu lool lañ jot a nemmeeku du lenn lu dul kënekat dafa mel ne daal takk der yi ñoom xalaatuñoo bàyyi te timit xalaatuñoo deltu gannaaw ndaxte lii nga xam ne rek moom moo dal askanu Sunugaal mën nañ ne mbir la moo xam ne rek mu doy war la te sax gis nañ ba kii di président de la république jot a yegg sax ba ne bu fekkente ne réglé wuñ deltu gannaaw ci décision yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal muy ay manifestation ak yi nga xam ne moom moo ko aju nekkat moom dina daal di jox armée bi li nga xam ne rek moom moo di Sénégal te mbir mi mën nañ ñe bis bu amee toroxtaange mën nañoo daal di yooto ak lu ci mënti am loole kenn ñaanu ko ndaxte liñ bëggoon moom mooy kënekat na daal di rocceeku nànk dem bàyyi ñoog suñum réew wala boog bala say loolaa yegg na daal di organiser ay élection neket moom moomee xalaatu saa bokk gannaaw mbir mi mën nañ ñe moom mii di Nathalie Yamba jot naa xamle kënekat xalaatul deltu gannaaw moom ci décision yi nga xam ne rek mi ngi koy jël di xeex li nga xam ne moom mooy àq ak li nga xam ne rek moom moo di yelleefam fii ci biir réew mi noone nag la ñuy daal di dooree gannaaw génnuk àdduna ki nga xam ne rek moom moo di moo Gueye moom mi nekk marchand ambulant bu nga xam ne rek jàpp nañ kënekat dañ koo daal di faat tabal lañ ko dóor ci li nga xam ne moom moo jot a génn ci ay certificat médical bi nga xam ne rek jot nañ koo xam ca autopsie ba nga xam ne daal di nañ koy amal ñii di ay frère jot a génn nekkat lañ leen wax du lenn lu dul kenekat bal lañ ko daal di dóor moo rey ki nga xam ne moom moo di seen rakk wala boo ko seen mag ca biir ba lañ ko daal di dóor ci mbir minimal tax nag ñoom ñëpp nag ñuy wut li nga xam ne moom moo di ay leeral wala boo ko ñuy sàkku ak leeral ci ki nga xam ne rek moom moo di ministre de l'intérieur nekkat arme à feu bi nga xam ne daal di nañ koy utiliser dóor ko ci ki nga xam ne rek moom moo di seen njaboot googee di wuyoo ci turu moo Gueye nañ ko daal di leeral doxal nam gën a gaawee nekkul nag loo xam ne rek dañ koy jot a nës nësal gannaaw ñoom ba ñu daal di àddu nekkat mbir minimel gis nañ ne gannaaw bu daan mës a am amul benn suite boo xam ne rek dana ca am wante lii leer ba passé leer ñëpp xam ne dañ koo daal di tooñ. te sax mën nañ ñi ñii di ay frère lañ jot a xam ne moom mooy ne moom marchand ambulant la woon daawul génn daawul def lu dul nekk ci lii nga xam ne rek moom moo di ab liggéeyam mbir mi ñi ngi ko xamale rek ci communiqué boo xam ne daal nañ koy jot a def gannaaw bu demee liggéeyi xëy wàcc bi manifestation yi amee nag ci lañ gis que ne kat di nañ koy jot dóor bal ñu jaare fa yóbbu ko fi nga xam ne rek moom moo di hôpital wante mujj sa rëcc ndaxte fala buur bi jëlee li nga xam ne rek moom moo di bakkanam ci réew mu nga xam ne mën nañ ne dafa jaxasoo ba paase jaxasoo la góor ga waxoon nekkat am na réew moo xam ne fa muy tollu ku yëngatu yaa tooñ nekkat réew moo xam ne màbbu kese moo sa des ku yëngatu yaa tooñ ndaw ñi jamono bi ñu toll nii nekkat ñoom danañ yëngatu wante yëngatu ñàkk pexe la ndaxte ki nga xam ne moom moo indi jéye ji ba ñëpp di baj-baji du kenn ku dul ki nga xam ne rek moom moo di seen njiitum réew di président de la république manifestation yi di wéy di continuer ba mën nañ ne niki tey ay yëngu-yëngal yu méttee métti sax jotoon a am ci biir réew mi donte la nag région yu baree bari ñu ngay fëy ñu ngay fëy xëy di continuer li nga xam ne rek moom mooy seen naqar di ko fésal bu baax a baax est-ce que nag fii la war a yem suite bi moom la ñuy xaar ndaxte nag kii di président de la république parewul te tamit xalaatu la pare pour delloo li nga xam ne rek moom moo di avance ndaxte kat gannaaw ab décret boo xam ne rek génnee na ko buy wane na kat élection yu annulé na ko wax nañ jëm kaw jëm suuf mu ne kat alamit li dina ko dagg. te nag xalaatu dellu gannaaw Sénégal yi ñoom it ne xalaatu ñoo deltu gannaaw kon fan la suñu réew jëm ndaw ñi nga xam ne rek ñoom ñooy wàcc ci terrain bi nar a ñàkk seen bakkan loole xanaa kii di président de la république xalaatu ko seytaan fii ci biir réew mi muy nekk loo xam ne rek way wudul fay la ñu ko kay wayal ak njabootam di ko dégg saa su ne ci mbir minimel tax nag ñuy ñaan jàmm dal di dellusiwaatee fii ci biir réew mi di leen di jëfal ci topp gi sa foog ak faale gi seen chaîne YouTube IYAT TV.